masin ba joona suubu leen dem gaar ba taxaw jóg taxaw nuy sant sayxi Fallilo jóg leen taxaw nuy sant sayxi Fallilo Serigne Fallou Mbacké mi ngi feeñ jamono bisub aljuma ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ciw rajab di ndeyi koor yamoo ak mars 1888 ca daaru salaam di dëkk bi sëriñ Touba njëkk a sanci fala feeñee mook magam ja cheikh mouhamadou moustapha mu yamook ak sancub Touba doomi soxna awa buso sëriñ fàllu mi ngi dalee alxuraanul karim ci sëriñ daam abdourahman loo ak mamor jaara mbàkke borom saam gannaaw ba la leen sëriñ Touba jox maam Cerno Birahim Mbàkke moom i tamit la leen dénkoon bi muy dem ca géej ga gannaaw ba cheikh Seexul Xadim ñibbisee ci géej gi ànd naag Cheikh Moustapha ak Serigne Fallou ca xumaag ca gànnaar foofu seriñ Fallou jeeju fa lool ci ay xam-xam yu jafe woon lool te tumuranke woon ca jooju jamono gannaaw gànnaar ga Serigne Fallou Mbacke des di takkoog waajuram wa Cheikhul Xadim ca Ceyeen Jolof ak ca Njaareem diggante boobu Serigne Fallou bindal na Serigne Touba lu tolloo ko ñaar fukki kaamil alxuraan 1913 Serigne Touba digal ko moom ak Cheikh Mouhamadou Moustapha ñu sànci Ndindi ak sëriñ Fallou sax nindi fukki at ak ñeent di liggéey ak jaamu yàlla di tarbiya taalibe yi tey bay di def ci jumaa ji 1927 sëriñ Touba ñibbi aljana sëriñ Fallou jël magam ja sëriñ Modou Moustapha teg ko place ba mu tegoon waajuram Cheikhul Khadim 1928 sëriñ Fallou moo tànn sëriñ Touba yéen a ju amoon ci aj Màkka muy aj gu rëy bu ñuy waxtaane ba jamono ji mu di histoire bu kenn dootul fàtte mu àndoon ca ak maam Cheikh Anta Mbacke borom àndoon ci ak El Hadji Mbacke ak ñu bëri ca mag ña sëriñ Fallou Mbacke taxoo woon loolu ak Cheikh Mouhamadou Moustapha diirub lu mu doon xalif général de Mourides féete ko ci wet gu ne ànd ak moom liggéeyub jumaa ji 1945 sëriñ Modou Moustapha wàccub liggéey sëriñ Fallou Mbacke doon ñaareelu xalif général des Mourides ci jamono yu tar tombé crise ak guerre mondiale sëriñ Fallou jël ay matuwaay yu am solo bokk na si defaraat dëkk bii di Touba képp ko askanoo ci sëriñ kër loolu ci lu tolloog ñeenti téeméeri hectare bokk na ci engagement yi Serigne Fallou jël mooy fexe ba màggalu Touba ñi di ko defee Touba ci atum 1946 la ko woote loolu jur ak yeesal ci pas-pasu taalibe yi ak i tamit dalal seen xel ci tolluwaayu jamono ju metti jooju murid yi jaajuwaat soññeekuwaat songaat liggéeyub jumaa ji gannaaw ba Serigne Fallou Mbacke yeesalaatee plan yi xoolaat devise yi liggéey ba dooraat entreprise bu ñuy wax Daragaz gagné marché ba ba architecte bu ñuy wax Escotona moo yore woon liggéey ba fukki at ak juróom ci liggéey bu tar ci xañ sa bopp ci la Serigne Fallou Mbacke ak murid yi tabax jumaay Touba di jumaa ju rëy Serigne Fallou Mbacke jiite ko ci teewaayu kilifa yi ci réew mi yépp aljuma juróom-ñaari fan ci weerum juin ci 1963 Serigne Fallou jiite jumaa ji defal Serigne Touba ak bëggam mottali ay mbébétam yamu sa mu dellu yeesalaat kàddoom yu siiw ya mu di jaay gi mu jaay njuréelam jëndee ko ak taalibe jël njëg la def ko addiyee Serigne Touba xilaaf ak Cheikh Mouhamadou Fadal méngoog ak ubbeekug yoonu murit ci àdduna bi sànce yu mag ci la daal di door mu ñod di raay bi tabax ay forage goudron yi Serigne Fallou di baykat bu mag ak àll yu bëri samp fa ay daara dooleel koom-koomu réew mi soppi tamit mbayin mi sëriñ Fallou di woon maam ju ñëwante ay sëtam si jullit yépp rawatina béykat yi ak ñi néew di doole Serigne Fallou Mbacké nekkoon ko xereñ lool te bari woon xam-xam saf xorom lool te neexub jotaay di woon ku bàyyi xel waa réew mi daan faral yëkkati ay kàddoom ci yu bëri yu mel ne ci sëy yi noonu la ko daan defee tamit lu jëm ci nguur gi ak ci chauffeur yi El Hadji Fallou Mbacké di nit ku ubbeeku jëloon ay jëfam yépp teg ko ci jikko ju rafet ak masla taxoon ñépp sopp ko doon ko juboo ak boroomam lu mu wax rekk mu fekk ci ko ci taxoon ñépp dawut ci ko nitu diine ak nitu àdduna daan xëccoo ay ñaanam mu doon ku takkoo ak président Senghor ñu fi ne woon jiitu réew ci jooju jamono. ak Kazu Rajab Seex Muhammadu Fàddilu Mbàkke daan naka màggalal boppam Daaru Salaam la daan xëyee ngir li mu fa feeñee door a dem kër Sëriñ Afiya Ñang mu bokkal waajuram wu jigéen soxna maam Awa Buso ñaa fukki at ak ñett Sëriñ Fàllu doon xalifay murit yi yiir leen defal leen dalal leen waar leen tàmmal leen boppam def si ñoom dindi si ñoom 1968 Sëriñ Fàllu Mbàkke wàccub liggéey fii ci Touba ci juróom-ñetti fukki atam maam fàllu ca mbaax ga ca mat ga ca tab ga ak xam-xam baak sañ-sañ ba wuy ji boroomam mu bàyyi fi cofeel gu mat sëkk ci mbindeef yi ñi ko xamul ñoo ko gën a tee bëgg xam nga ngeen